وشكري والكل بيسارا لو إذا دون سقط عند سرسارا comité d'organisation siyaara annuel bu Sarsara di kuréel gi yore lépp lu jëm ci waajtaay ak taxawaayu ziyaara bu ñuy amal ci Sarsara ci Mauritanie at mu jot ci njiitu Serigne Sidi Mbacke ibn Serigne Muqtada Mbacke ibn Xaadim Rasoul nin koy defee at mu jot amal nañu tukki nemmeeku yu am solo ñeel mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ni dañoo bàyyeekoo Sénégal ñëw fii ci Mauritanie ngir dundal bis boo bile ginnaaw bi mu àndeek yenn ci daayira murit yi féete fii ci dëkk bii di Mauritanie amal nañu tukki nemmeeku boobu ci mbooleem gox yi nga xam ne nii délégation yi dal nañu fa. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi sama mbokki Baay Faal yi ak sama mbokki Yaay Faal yi ñu ngi jiital nuyoo bi nag ci sëriñ Sidil Muxtaar ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtala ibnu Cheikhul Xadim kon suñu xel gën naa dal daayira bii nag sëriñ bee ko tëyal boppam tuddeel ko boppam raddi toxañil mawla taxala lasi rabba fu aadi wa ahnaani wa akrim bihi rabba bëgg dool ci ñëw bi ñu fi ñëw ànd ak sëriñ bi sëriñ bi nag ah, mi ngi nii li ngeen ci wax sànq rek moo ci ne waa gànnaar ñun waa gànnaar xamuñu waaye am nañu ko ci xam tuuti nañ ko ci xam parce que am na lu mu leen defal ba ñu yëg kon sëriñ bee leen seet si tey seet gi mu leen seet si seet si gu am solo la da ko xam te it fee mu jógee léegi ci kër ga dafa ànd ak bokk taalibe yëpp ñu baax ñëpp la ànd suñu sang yi ñu àndal suñu ci Baay Faal yi ak mbokk mi ñu jaar léegi waaw ah, teeru nañ ko teeru boo xam ni yëkk nañ ni sëriñ bi jógam gii mu jóg bu jeexee lépp mën naa soppi lépp mën naa baax lépp mën naa ànd baax tey jii rek mën nañu àgg saa saa leen di soññ te seen seenu taxawaay te soññoo ci seen taxawaay nee na ñun ñëpp barkeeru ci waxu sëriñ bi li mu waxoon ne inna lazina ila sarsaara xad xasadu ziyaaratil faraqu daarayni aw saara nee na faaraxu daara ni aw saara nag moo tax a jóg ñëpp nee na waaye yéen fi ngeen jóge daa gën a sori moom fi ñu jóge fi ngeen jóge ñun fi ngeen sot jóge yéen dafa gën a sori fi ñu jóge ñun ngir jëm foofa te lu baax kat lu yàlla gërëm saa boo jógee jëm ca jéego boo dox rek aw yu lay doon loolu lañ leen ñeewee kon nag ñu ngi sant bu baax di ñaan suñu borom mottali ci yool bi mottali it yiw wi ci ñëpp te nee seenu càkku jëf yàlla defal leen ko nee na mi ngi sant bu baax nag nee na ñu fasaale leen ci yoon wi rek bismillah nee na mi ngi sàkku nag ci jéego yi. ñëpp nañ ci saxaale sëriñ Modou Mountakha yàgg fi ñun sëriñ Bassirou dañ ko fasaale ci ñaan bi ci dem yeeg ci ziar bi yëpp nañ koy fasaale nuyu te di leen ziar bu baax a baax di leen dalal ak jàmm ci barab bii nga xam ne saa yu ngeen fi teewee rek suñu xol ak suñu xel yëpp day dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee di seet si saaba yi ndax yoon gi saa yu ñu jógee di dem rek suñu xel day dem ci saaba yi bi ñuy seet si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xur yi kon nag seen dikk fii saa su nekk day nekk suñu ak mbégte ak tolluwaay annaam alhamdulilah ala kulli haal ba tax na kaamil yi itam yi nga xamante ne digle woon nga ko te sas ñu ko ñoo ngi ci xam naa ne fileeg ajuma danañu matal lim bi waaye li nga xamante ne mooy suñu yéene mooy ku fi ñëw sur le plan culturel moo dana xam ni ñii ñëw nañu di sa ay gan waaye indaale xam-xam boo xamante ne warees na si wane geneen xar yoonu borom Touba ci loolu lañ nekk te incha allah bu motee ba ñu matale ko da nga xam ni liggéey boobu waaj nañ ko ak waaju yéene loolu rek lay tënkee kàddu yi di jéggaluwaat bu baax a baax a baax di sant itam bu baax a baax Mbàkke sa teewaay fii. di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi toog muy Serigne Sidi bu Cheikh Mouhamadou Mourtada di ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barke Cheikhul di ñaan mbokki taali yi tamit suñ borom wéral leen te dëgëral leen defal leen gudd fan ak kàttan kenn ku nekk li nga fas sa xol yaa ko xam Sëriñ Tuubaa mën na ko yàlla na ko def te jéego yi ñuy dem mu nekk jéego yoo xam ne comme ni ko sëñ bi waxee woon rek lépp lu ci waaye bëgg fas ko ci rek suñ boroom di ko defee noonu ñu di ko gis liggéeyub nemmeeku bu am solo bi nag Serigne Sidi Mbacke ak délégation bi mu àndal ñu gën ca ràññee kuréel giy saytu lépp lu jëm ci waajtaay ak taxawaayu ziyaara annuelle bu Sarsara ñu ngi ko daal di jeexale fii ci Daaru Nahim mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital nag ci nuyoo bi sunu kilifa gu baax gi toog di sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada moom Cheikhul mi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou taxa magam ju baax ji teg ci boppi murid yi nekk gànnaar yëpp ñu ngi koy nuyu ci turu soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe di nii nuyu ci mbooleem délégation bi nga xam ne ñoom la soxna maam Issa Mbacke àndal. lépp nag Mbacke luñ ci mën a def donte benn jéego la ci saw tur lañ koy def duñu ko tàmbale te tudduñ la duñu ko tëj te tudduñ la ndax dama laa waxoon ne la soxna si nee na toppee dafa gën a noppale moo tax mi ngi ci sa ginnaaw nee na sëñ Modou Fati xëri daa ma sa wax njabootam ne leen ku sëñ tubaa joxoñ dem leen fa moom bu leen topp ku sëñ Touba joxoñut te Mbacke sëñ Touba joxoñ kon soxna si nee na na nga xam ne bu la ëppooni at tam def na la ngay ëpp sëriñam def na la ngay kilifaam beneen bi ci dooleeku mooy sëñ Muntaxaa moo la teg fii te sëñ Muntaxaa bu fi tegoon ëkk sax ñun dañuy ñëw diraay ëkk gi soxna si nee na loolu mi ngi la koy firndeelaat moo mboolem ñim àndal nee na bépp liggéey bu nu liggéey mépp mbooloo muñ àndal na nga xam ne sa mbooloo la alal juñ am sa alal la suñuy jëmm ngi moo muñ suñ bopp dara lépp jox nañ ko gi jëm sëñ Tuubaa ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax a kàddu cant rek la damay sant euh, taxawaayu soxna si ndax fii ne boo xoolee yokk yi ñu wax ci bis bépp ah, ci moom la tàmbalee sub sarsaare bi yokk yi ñu ci wax ci délégation yeeg ak nu mën a toll ci moom la tàmbalee mais délégation bi njëkk jóge Sénégal ñëw fi fekk suñu fi ci bis bi ku ci rax gànnaar moom moo ci jiitu kon euh, loolu fu mu toll rek euh, kon lu ci dolliku rek moom lañ koy eh, sante waaw kon nag loolu yi dañ leen ko doon seereel rek waaye xam ne eh, waaye moom xam ne li muy def ndax ma dama jëlale Sarsara sax waaye ba ci ba ci tuubaa rek ñun buñ fa nekkee dañuy gis taxawaayam ci biir dëkk bi ci ci ci liggéeyal Sëñ Touba nga xam ne luñ sumb ci liggéeyu Sëñ Touba bi rek boo geesoo gis ko gis aw nitam loolu loolu loolu tamit lu rëy la mérite bu rëy la moo xam ne ñu ngi ko koy ñu ngi ko koy sante baax a baax a baax a baax kon nag ñu dañ ñaan ñaanal rek ñaanal mbooloo mi ngeen àndal dalal seen xel ngeen xam ne li am solo yéen a ngi ci waaw ñaan gi gi ngeen ci am ñaan gu ko gën a mag mënta am mooy ñaanuk Sëñ Tuubaa ndax moo ne waqd xawaaij alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu kon ginnaaw yéen a ngi koy liggéeyal tab bi ngeen ci ñaan ko jërëjëf ginnaaw jéego yu am solo yi nag yore lépp lu jëm ci wàllu jokkalante ci biir kuréel gile gën naa dikk ak ñun ci ñum gën a yaatoo délégation yi ak daayira yi seen wàccuwaay ci liggéeyu Sarsara. délégation yi suñ ko doon xayma day toll ci ñeent day toll ci ay ay kuréel yoo xam ni ñu ngi tënku ci ñeenti kuréel ci seen seeni organisation am ñeneen nag ñu bootu seen ginnaaw. ñoom soo xoolee dafa am délégation ba su ma ko doon euh, xool ci ci ñu mel ni Mouhamed Soxna euh, ñoom ñoo yor liggéey jumaa ji nga xam ñoo nekk Sarsara ñoom la ko sëñ bi dénk ah soo euh, ak soxna soxna soxna soxna Issa ñoom ñu yor lépp luy organisation ñuy jóge tubaa comme ni ko sëñ bi waxee sànq rek ñoom ndeysaan ñoo njëkk a soobu ci liggéey bi ah doon délégation boo xam ne mi ngi jógee Sénégal di ñëw di ñëw Mauritanie di ànd ak di ànd ak ñun ci liggéey bi ak euh, ku ci mel ni Bas Amar ñoom euh, ñi nga xam ñoom ñooy yaatal liggéey Sarsara ñi nga xam ne fu nekk la dem ngir maanaam liggéey bi jëm kanam délégation bu nekk daal am na liggéey bu am solo bu muy def ñoom ñëpp nag ñu dajaloo nekk benn benn benn kuréel suñu ñëwee fii di pour pour pour màggalu Sarsara. ngir jeexal kàddu yooyu sax ñoom ñi di comité d'organisation bi mu ñuy xamal yeneen activité yoo xam ne nii ñoom ñi dinañ ko amal. le set dañoo ubbi benn musée musée bi mu am ay exposition ak lépp luy njàngatum Serigne Touba. nit ñi di ko mën a xam ci réew mi ñi nga xam ni ci ak ci langue yëpp nag suñ fa ñëwee da nga mën a xam ni fii la sëriñ Touba jaaroon bi mu ñëw Mauritanie lii la fi def lii la fi def lii la fi def loolu moo waral musée bi musée bi tey lañ koy clôturer incha allahu rabbi bu ko defee suba aussi moom la ñuy waaj suba ci waxtu wi day fekk ñëpp daje nañu ñu nag tënk euh, jataay bi pour mën a waaj dem Sarsara suñ fa nekkee aussi incha allahu rabbi ba ajuma ba julli ba pare danañ jaar mat amulaana loolu tamit cosaan la mat amulaana mooy fi wulaaj fi wulaaj deymaan yi nekk nga xam ni ñoom aussi ñoo nekkoon ay walërey Serigne Touba ah ñi taxoon tey Serigne doon wax ardu saalihaat ñoom ñoo nekk foofu donc loolu moom mooy loolu moom mooy ziara bi nga xam ne moo war am ci wàllu woowu suñu accès nag am na cérémonie de officielle clôture bu mag boo xam ne mooy tëj liggéey bi ñu def yëpp muy amee ci palais du congrès kooku day am le 14 ñu fay dajal ñu mel ni Euh, ministre yi ak ambassadeur islamique yi nekk Mauritanie yëpp dañ koo teew a daaw te ñoom ñëpp incha allah rabbi ñi ngi xaar seen seen seen ñëw ak délégation bu mag boo xam ne dañuy ñëw ci sëriñ sëñ Muntaxa xalifatul am ñoom ñëpp ci palais du congrès pour tënk liggéey boobu nga xam ni moom nag moom la ñuy hmm, évaluer ci liggéeyu màggal gi yëpp ci ci palais du congrès mu nekk nag liggéey bu am solo boo xam ne ni Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Mourtada Mbacke waaye teewal fi xalif général des Mourides Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke mu koy am di ko ànd ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ni dañuy bàyyi fu nekk ci bitim réew rawatina Sénégal ñëw fii ci Mauritanie ngir barkeelu ci jéegooy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii ci Sarsara ci fàttali rek ziaru Sarsara atum 2022 ñu ngi ko dippee Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke nekkoon ki fi jëkk a wuutu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim xaadim rasul ci xilaafa gi لو دون سقط عند سرزارا